fi ñu toll tey suñu baykat yi mun nañu jëfandikoo ay garab yu ci mel ni ngeer ak ngigis yi nga xam ne ñu ngi leen di fekk ci àll bi pour yokk seen rendement ak dooleel seen suuf garab yooyu ma tudd léegi nag muy ngeer ak njigis dañuy dooleel suuf di yokk rendement ci ay anam yu bari ci vidéo bi ñuy seetaan nii dinañ leen won lan mooy njëriñu bàyyi garab yooyu ci biir tool yi ak nan la mun a doolelee suuf si nan la mun a taxee ba suñu gàncax yi di teel a ñor ba pare rendement yi di gën a bari waaw nan la xeetu garab yooyu di mun a doolelee suuf ba pare yokk suñuy rendement waaw garab yooyu nga xam ne ñu ngi mel ni Guiera senegalensis ñu koy woowee ngeer ak Piliostigma reticulatum ñu koy woowee ngi gis dañuy nekk ci euh, tool yi ay at yu bëree bëri bëri bëri seen nekkin ci tool yi nag bu yàggee dafay bàyyi xeetu toos boo xam ne bu décomposé woo dafay joxe ay ferñent yoo xam ne garab yi dinañ ko mun a jëfandikoo pour bu ñuy màgg. teewaayu garab yooye ci biir tool yi dafay dooleel suuf si ba nga xam ne dina mun a téye ndox bi ba nga xam ne gàncax yi dend ak garab yooyu dinañ ko mën a jëfandikoo pour bu ñuy màgg kon bés boo dindee xeetu garab yooyu di mel ni ngeer ak ngi gis yaa ngi wàññi doole suuf si yaa ngi wàññi ferñeent yi waaye ndox mi nga xam ne daan nga ko jëfandikoo pour garab yi di màgg dafay gën a wàññeeku. li nga xam ne nag lu mët a bàyyi xel la ci xeetu garab yooyu di mel ni ngeer ak ngi gis bu guddi jotee dafa am benn xeetu ren bu mag bu ànd ak garab yooyu nga xam ne dafay xëcc ndox bi nga xam ne mu ngi ci biir suuf si génnee ko tasaare ko ci weti garab googu ba nga xam ne lépp luy màgg ci wetam daf koy gën a dooleel ndox daf koy gën a dooleel ci wàllu ferñeent waaye day taxit màggaayam day gën a gaaw ko beneen garab bi nga xam ne màggeewul ci wetu ah, taatu garab yooyu di mel ni ngeer ak gis ndox moomu ngeer mi ak ngi gis mi di xëcc di ko tasaare ci suuf si bu guddi jotee dafay jàppale dugub jeeg gerte gi ñuy bay ci taatu garab yooyu noonu bu naaj bu taw bi wàññeekoo. bu ñu bayee lu mel ni dugub ak gerte ci taatu ngeer mi ak wala gis mi dina tax gàncax googee dinañu màgg fukki fan ak juróom laata seen waxtu ñor di jot loolu nag dafa am solo ci suñu dëkk yu mel ni nga xam ne Sénégal bi nga xam ne nawet bi dafay wàññeeku wala taw bi li muy taw du doy. mën a toppatoowee ngeer mi ak ngigis mi ba mu mën a amal solo baykat yi. bi ci njëkk nag mooy ñu bañ a faral di buddi njeer mi ak ngi gis mi nga xam ne ñu ngi leen di fekk ci biir tool yi beneen bi ci topp mooy bu ñuy ruut di waajal nawet bi bu ñu daggee bànqaas yi nga xam ne moo féete kaw te mu ànd ak xob yi bu ñu paree ñu bañ koo lakk nañu ko jël ko ba mu sew ñu jël ko sottiwaat ko ci biir tool bi nga xam ne fa la ñu waaj pare pour bay bu ñu wasaaree xob yi ak bànqaas yi ci kaw suuf si ba pare dañuy rëjj benn rëjj bu ndaw boo xam ne dina mun a tax xob yooyu ak bànqaas yi féete suuf ba nga xam ne dina mun a tas seey ba nga xam ne dina doxe ay ferñeent yoo xam ne dina mun a gën a dooleel suuf waaye it ni nga xam ne mooy ay nématodes yi nga xam ne ñu ngi ci biir sol bi tamit dinañ leen wàññi seen doole. bu ñu daggee banqaasu mi ak ngigis bi nga xam ne moo féete kaw ba pare ci noor bi bu ñu paree bu ñu ko lakk nañu ko fajar ba mu sew ñu sottiwaat ko ci suuf si rëcc ko ba nga xam ne bu décomposé woo dina joxe ay ferñeent yu am solo dina dooleel suuf si waaye dina tax suñu rendement yi dina gën a yokk. leneen liit mooy dugub wala gerte bi nga xam ne dañ leen di bay ci taatu ngeer mi wala ngi gis mi ñoom dinañu jëfandikoo ndox mi nga xam ne garab yooyu dinañu ko indi nañu bàyyi xeel ci ne taatu ngeer ak ngi gis yi nga xam ne moo ne ci biir tool yi kenn waru ko buddi sànni kenn waru koo lakk it taal ko li ñu war a def mooy bu ñu dagee banqaas yi nga xam ne moo féete kaw nañu ko ferej ba nga xam ne sew na ñu door ko labourer mu mun a dugg ci biir suuf si bu ñu bàyyee taal bi ñuy taal xob ak bànqaasu ngeer mi ak ngigis bi waaye di ko fejer ba mu sew sotti ko ci suuf si labouré ko dina tax dinañu gën a yokk suñu doole suuf dinañu tax tamit récolte yi nga xam ne moom la ñuy def dafay teel te dina yokk si suñu rendement ba nga xam ne dinañu mun a am mbay mu sell te wóor